ومسكني سلي من الفجار وامن الآل بما من جاري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokki taalibe yi yéen dëkkandoo yi di leen di leen sant di leen fàttali mu bi tedd bi ci Tuubaa muy mu dolli ko wormaal dolli ko sàmm lépp lu fi yellut ndax borom dëkk bi su ngeen gisee bi ñu koy sëñ mu ne sefeet bi warab yu tudd yëpp dikk ba ci digg mandi mu leen wóor ne dara nekku fi woon lu dul ab xàll ak rab leneen mu fàkk ko ba mu set def fi dëkk bu sell bii tudde ko turam bu sell lépp lu naqari yàlla ak yonente sori lépp luy yàq jikko ak melo moo ko waraloon kon maa ngi leen di digal dëkk bii nu wormaal ko sàmm ko bu fi kenn def luy niru fo bu fi kenn def luy niru mooy yàlla waxoon naa leen fi ne bu fi kenn naan bu fi kenn dorog bu fi kenn tëgg tama bu fi kenn sabar bu fi kenn fecc bu fi kenn kar képp koo xam nañ ne yii ma la wax muy xeeti mooy yàlla ak xeeti po yaa ngi ko suñu defati mooy waraan siinu fa saasa la ñuy defante yow teg nañu ci suñu bakkan képp ku ko fi defati daal ne la wóor ne musiba ma lay dal du doon moom baati moom saayir lay doon si ne la wóor ne ci kaso ba nga jëm lëfa ngoogu nag loo xam ne lu dëggu si man na loo xam ne bëgg naa mu wóor leen ne tere gii ma koy tere tere inu tiraanga laa ko tere tere inu sutura laa leen ko tere ku loolu soxalut nag ma nga ne da nga ko fi def ku mu doon nag ci àddina ay def booyee ko muy tey bu dee tey li fi juddoo dana judd tey du jokk loolu rek laa leen bëgg a xamal dafa di fi daal lu bokk lu dëppoo ak li nga xam ne borom dëkk bi bëgg na ko képp ko fi defati la mu ngi jël waatal naa ne ci yàlla na du jokk fasaa dina jub képp koo xam ne dinañ ne jot li jii ma la koy jot ni jot ko ci ba am te defe ne war ngaa mën a def leneen nag ku mu mën a doon bu boobaa da nga xam ne sàmm ma fi bàyyi wattoo ma fi bàyyi ay yéene in sëriñ bi nee ma ngi ñaan kon mbokki julit yëpp ak mbokki taalibe yëpp taxawaayu sëriñ Modou bii ci taxaw lépp lu bon mu bëgg koo seetal ci dëkk bi taxawaayam boobu kenn ku nekk ci ñun na na ci sant te am yéene ànd koog sëñ Modou Lo di jox ko suñuy xel ñu jox ko suñuy xel ak suñuy bët ak suñuy taxawaay nekk ci wetam lépp ci wetam ànd koog moom ci liggéeyub Serigne Touba bu rëy bii Serigne bi nee na lii kët moom mënta ñàkk waaye nag lu jafe la nag. kon ñun ñëpp sëriñ bi nee na nañ jàppale sëñ Modou ndax benn liggéey bi rek la muy liggéeyal sëñ Touba te nee na njëriñul ñëpp la njëriñul lu baax ñëpp la nee na noonu rek la demee sëriñ bi nee na na ko ñëpp dégge noonu ñi dëkk ci dëkk bi ku dëkk ci dëkk bi ak ak ku aju ci dëkk bi foo man di nekk sa yitte na nga ko def ci liggéeyub Serigne Modou Lo bii te ànd ceeg moom la cay càkkam kàttan ba dëkk bi li ci borom bëgg moom dara mënu koo tee waaye nag liñ ci war ñun ñu def ko te ànd koog sëñ Modou Lo mii sunu kem kàttan jërë ngeen jëf. ومن ملال بما عن جارين